Euh, nga soog a dugg si mariage nga nekk xale euh, et puis nga am tout euh, sénégalais yi li ñuy li ñuy wax célébrité yi chaque jour mooy li ñu ay saykat amuñu amuñu temps wu sëy dañuy wut xaalis dañu wala dañu seen tur moom moo tax nga nekk dugg ci mariage étant xale ngay dégg loolu yow ba pare ak li nga xamante ni dund nga ko yëpp loolu moo taxoon nga toog fa di dund loolu. exactement défi la défi laa duggee défi bu nit ñi nga xam ne dañoo siw duñu sëy. loolu defi la te pas mal de pas mal de personnes non xoolal pas mal de gis nga pas mhm. mal de célébrité ñu ngi dugg tey ci ci sëy pour fight li nga xam ne mooy baat boobu noonu exactement te yenn saa yi bu la yàlla fekkee nga dajeeg nit bu xamee ni que da ngay sóoraale loolu da ci profité parce que xam na ni àdduna du neex ba nga génn parce que yaa ngi xeex dara mhm. comprendre nga. ñu bari duñ ko comprendre foofu moo tax yu ci bari bari bari da koy muñaale comme li may wax rek su ma nekkee ci biir nekk yow mi ci biti munoo seede la ci biir néeg ba boo ko waatee ah ëllëg de di nga ko layoog sa borom ndax fekkee woo ko te ñu ci bëri tey ji dañuy génn maa fekkee maa lii truc du genre te yàlla xam na ni que man mii di ndaxte sa xaw ma leen. xamoo leen xaw ma leen. ku nekk di wax. wallaahi ñu ci bëri tey ji dañuy génn di wax waaye man bii di ndaxte xaw ma leen. te yaa ngi dégg baat bu nekk. damay toog mais dama naan euh, je m'attendais à ça je m'attendais à ça parce que du ñëpp ñoo du ñëpp ñoo ñoo ñoo ñoo ragal yàlla. man day loo lu may wax dafa may leer. mais sant yàlla bi ñu duggee ci glow bi. mais mais mais bi nga génnee ba def euh, confection euh, tube bi génn je dirais quatre-vingt-dix-neuf pour cent des femmes du monde entier euh, euh, particulièrement du Sénégal t'ont soutenu. exactement cest euh, am na ay célébrité yu génn euh, def ay live ay célébrité yu génn def ay vidéo nit ñi ñu xamul nii soo dee xool commentaire yi tout le monde était avec Ndaxte lan la bon sant yàlla rek ah sant yàlla parce que ñoom tey jii li leen waxloo mooy am na ci la majeure partie yu dund la même chose comme li ma wax ñu ci bëri tey ji appel yi maw jot nit daf may woo sax ne ma dama bëggoon juste nga déglu sama histoire hmm? c'est comme si da wax waxaale lu exactement parce que mooy li ma wax léegi du benn ndaxte rek a fi am y a plusieurs ndaxte yu bëgg a wax waaye amuñu fu ñu ko jooyee amuñu fuñ ko waxee man tey ji yàlla dimbali na ma ba ma toog fii tey di ko nettali mm-hmm. mais am na ci ñoo xam ne tey ji ñii xaru nañ ñii rey nañ ci lii parce que y a des yoo xam ne daf lay daf lay déprimer loo mm-hmm. mais sant yàlla sant yàlla bu wér di ci gërëm sénégalais yépp nag euh, képp koo xam ne tey ji mbir mi laal na ko mu toog tuur xewal maa ngi ko ci euh, jéggalu bu baax a baax parce que du woon sama intention juste sama histoire laa raconté peut-être ma laalaale ba sam te am na yoo xam ne dañ koo nelawal ba pare loolu yeewaat ko maa ngi ci jéggalu ñu bari mais mais looy wax ñi nga xam dañuy wax sa histoire bu similaire ak Boss Ndiya Guissé seen way yi seen vidéo yi lan wax. bon ñu ci bëri loolu la ñuy wax te dañoo fàtte ni que yàlla lu mu rëdd sa jë rek da nga ciy jaar. da nga newoon ci ceen gi ba génn de. exactement ceen gi leen exactement parce que. Euh, moom je pense euh, dafa def euh, ay corde je pense. Ah, waaw man ma ñëw def cage benn cage laa def et parce que woy artiste une artiste c'est à travers tes chansons que ngay exprimer li nga xam ne moom nga bëgg a wax mhm. te clip mooy moom mooy gën a leeral que sax li nga wax clip c'est les images qui parlent. Mhm. c'est-à-dire même ku bi ngay làkk. exactement bu xoolee image bi. dafa war a xam lan laay wax loolu moom mooy njëriñu clip te tey ji exactement loolu ça explique beaucoup de mm. choses moo tax mënu ma woon def neneen nu dul nii pour expliquer moo tax ñu def lii parce que clip bi woy bi moo laajoon loolu moo tax ñu defee noonu clip bi ok euh, Melo man damay ñëw ci euh, chanson bi. Hmm. ndaxte dama ci seetlu euh, trois styles musique yu différents. exact dama gis nga commencé acoustique dem ba ci biir def afrobeat def dance hall hmm. jeexale kook mbal. da nga doon wane au delà de li la metti nga wax ko mais tamit da nga doon wane tamit mënee nga fu ne. exactement parce que noo tëggee style musique bi. Euh, gis nga son bi dafa tontu lu bari ku déglu son bu bu baax a baax a baax le son parle les images parlent mais aussi la musique parle. tey jii di nga invité artiste nga ne man style musical ngay def. Ah. man tey ji boo dégluwee son bi doo ma ne ndax da nga focaliser wu ci benn style. kese mm-hmm. Mm-hmm. tout a été préparé ah. parce que tey jii ku gis lii. du ma ndaxte de ndaxte moom acoustique rek lay def ah. wala ndaxte de dance ëllëg la wala ndaxte de lii parce que j'ai regroupé beaucoup de styles exactement exactement c'était ça l'idée ah ay bomba taw ay matinée eh, xam nga bomba xam nga bomba yoon laa mas a dem non deux fois laa mas a dem soirée uh-huh. mm-hmm. yi dem julli ji quoi mu <laughs> may may génn soir bi ñu dem tëdd daje gaay bi xëy ma gën a rus. nga rus. ñaari ñaari ñaari yoon yooyu laa mos a dem soirée wallaahi nag. waaw léegi tey léegi yow léegi tey yaa ngi génne gaañ yow. ñuy dem soirée voilà. kii moo neex te man instant bu ma génnee dama joué ji bu ma dem boîte. waaw mais dama ne mais dama yaa ngi yaa ngi génn. Ah, gars yi ñu la baal waaw gars yi ñu may baal si ñu ngi ñëw. Ah. ñu ngi ñëw mais. <laughs> après yow bu ñu demee heure julli. yow foo dëkk nga ne. Kër Massar. Ah. góoru Kër Massar. Kër Massar ils sont saa jàpp saa jàpp na jàpp loolu ba mu dëgër te man pourtant benn benn benn benn parenthèse pourtant benn parenthèse rek laa sànni man nag man man Kër Massar laa ragalu ma de nga may xool nii. non góoru Kër Massar dañoo ragal. Eh, ndaxte xoolal ñu may xool nii. Eh, góoru Kër Massar yi ñoo gën Sénégal. mataraat la ñuy yore dañoo gën Sénégal. <laughs> yaa ngi woon ci style musique. waay mu exactement ñu wéyandoo style musical yooyu yëpp comme ni ñu ko waxee gis nga nit dañoo nekk ci kii boo xam ne dafa jeune. Mm-hmm. te bi may kii bi maa ngi ko defee ci studio El Maestro ndeysaan dama toog ma ne ko euh, lu nekk maa ngi koy gis gis naa ñu yeewaat maam yi gis naa ñu yeewaat ku nekk ñu yee la mais amoon na benn temps Sénégal dafa neexoon trop mooy temps wu matinée yi dansal. yegg ci bu la dansal mel bombaas. non comprendre. <laughs> temps dansal yi sénégalais bi ñu ko jëlee. ma ne ko jeunesse boobu tey ji ñu ci bëri tey ji dafa dafa dafa nelaw ci ñoom mhm. pourquoi pas ma ñambaas leen cukkaat leen ci rek ñu xool nu muy demee noonu noonu la ma idée bi ñëwee donc loolu sa idée la yow exactement ah mhm. exactement sama idée la ma ñëw tegal ko El Maestro mu ne ma tu raison léegi nañ ci jéem a defar lii après ñu defee ko nii xam moom nag mu nekk benn artiste bu bu bu complet macha allah maa ngi koy nuyuwaat bu baax écriture bi ma ñëw histoire bu ñuy raconter écriture bi du metti ñuy ñëw may raconter ñuy bind et moom tamit mu am quelques mots yoo xam ne tey ji dimbalee na ma ko ci lii fii lay dugg lii fii lay dugg lii fii ñu defandoo lépp macha allah mais sant yàlla bu wér ba ñu génnee lii mu nekk it. Mm-hmm. macha allah nice ah ah ah ci gën kon na naan dem. oh. lu lay rappelé. <laughs> loo ko wax. <laughs> ok boobu ay mbiram. <laughs> nee ba xam da naan dem. moom fi ne nee na li yow rek yow rek la bëgg a baal si instant. Ah, waaw foo teg dinaa ñëw waaw waaw dinaa ñëw xam naa ne kii ci ruq tamit dina ñëw. moom moom moo muy jiite. dina ñëw de kii boo nekkoon sànq euh, garde du corps euh, ndaxte. dina ñëw bàyyi ndaxte ak xiir sa ñoom ñaar ñëpp. ñu euh, soufflé un mm-hmm, mm-hmm. ñu dem service commercial fàttali partenaires yi nga xam ni ñoom ñoo ñuy gunge ci deuxième partie Zik Feeling Live bu ñu ñëwee dinañu dégluwaat ex bu xiir sa Ah, mais bëgg naa xiirsa comme guitare bi ñëw na. Mhm. avant ñoo yëkkati jotaay bi yow ak ndaxte. waaw soo téyee bi. ñu xool ndaxte en live. waaw.